jërëjëf mbokki internet yi nga xam ni nii yéenay am mbégte di seetaan seen télévision Dunya Production ñuy am mbégte rek di ñëwaat ak yéen ci seen émission déggoo Euh, émission déggoo nag tey dafa am gan gu mag boo xam ne kenn dootu ko présenté fii ci Afrique rawatina fii ci Sénégal gi ñu ne ñu waxtaanee tey wàllu course ku wax course wax jockey bu mag bi xam ne Jolof la dëkk euh, jamono ñi ñu génn rek mu raw course bu am solo ñu koy woowee Pape ñu ngi bokk ci euh, écurie professeur Sakhir Thiam kon Pape ñu bàyyi la nga nuyoo ak yi Dunya Production. waaw Modou maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu waa télévision production yëpp. Ah, di rafetlu invitation bi ngeen ma invité ah, di rafetlu seen liggéey bu baax parce que yéen ngi suqali jolof te man doomu jolof laa kon donc lépp luy suqali jolof lu doomu jolof di ci yëngu bu ma ci wooyee dinaa ci sawar a ñëw lool maa ngi rafetlu lool invitation bi ñu ma invité kon Pape euh, yow euh, nekk nga koo xam ne ràññee nañ la ci wàllu kursu euh, sa turu egg na fu ne macha allah suñu la laajoon tey rek ci tënk kan mooy Pape ngi loolu ñu tontu waaw Pape Gningue moom yaakaar naa ne neex naa présenté au niveau national parce que Pape ngi benn doomu daara la doomu jolof-jolof juddoo jolof yaroo jolof euh, jànge métier ak li mu doon ndakaaru yàlla def mu am passion course débuté fii daara aussi kër bi Sadio Kayta maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla xare ko aljanna di remercier aussi Pape dafa nekkoon sama mag bu sës man ci gannaawam laa doon fanaan ba tey yàlla def li muy def kon maa ngi ci raw lan moo la la déggee am na métier boo njëkkoon a jàng bu mooy wàllu man presque métier yi ma mais métier bi nga xam ne moo gën a réussir sama métier à part fas euh, mécanicien parce que ci laa njëkk am diplôme mm-hmm. ci mécanicien laa njëkk am certificat mécanique troisième à mm-hmm. ñaataat nga ci def mécanique def naa ci douze hmm. mais nan nga euh, jékki-jékki rek euh, virus wu fas dugg la ba tey nga nekk choqué boo xam ne ñëpp la xam. waaw virus fas moom ni ma duggee dama ko doon parce que sama papa fekk ma ko mu yor ay fas course mais fekk naa ko mu yor ay fas en plus que daana jaay ay fas mu nekk ay fas course. Hmm. ma judd ci loolu fekk suñu kër fas ma bëgg fas xam nga yàlla rek mooy xool kenn ku ci nekk mu def benn affaire. ci yow euh, mu bëgg loo ma fas ma bëgg fas topp ci ba yàlla dimbale ma tey ba tey fi ma yegg tey ci fas ma yegg. bi nga jàngee mécanique ba mu yàgg sa xel ne ci nekk jockey euh, kan nga njëkk waxanteeg euh, ba commencé koo jàng. waaw man parce que sama mécanique li tax sax moo du ma gën ko jàng mooy ci fas lañ ma santaasi. parce que li naan nit ki boo ko bëggee nax danga koy nax ci li mu bëgg. Hmm. jolof genn wàll gi yëpp yaakaar na ne man fas rek mooy sama liggéey. parce que bi ma nekkee fii ki ma soxla bi ma bëggee jël si fii dugal ma ci fas muy Basiru Njaay Mbay Anta yàlla na yàlla yërëm ko te yeexuñu mooy papa bas euh, Pam Njaay Basiru Njaay Mbay moo ñëw jël si ma sam papa uh-huh. mu ko man sama doom bëgg naa ëllëg lu mu mën di def mu am métier bëgguma mu topp fas rek boobu bu ëllëgee du am métier uh-huh. mu ne ko man soo ma ko joxee dinaa ko jàngal métier uh-huh. mu jox ma ko mu yóbbu ma à Dakar waaw su ma jumut quatre mooy événement naar ci laa dem bi ma demee kër gi ma nekk entreprise mécanique moo fa nekk ma boole fas yi ak mécanique bi parce que heure bi fas yi liggéey mënul yàq dara sama liggéey ak mécanique parce que man ci loolu lañ ma forcé mooy bëgg machine nekk ci yàlla def sama xel neex ci lool ma teel ci réussir. noonu laa leen boole. la yóbbee Dakar daf la yóbbu ci benn écrit ngay suivre wala naka la demee jàng gi. waaw daf may yóbbu ci benn écrit. ma nekk fa ak ay nit. ñu ko affe ma. su ma xëyee dem liggéey parce que courte saison la. su ma wàccee ñibbisi si kër gi su ma demee bañ soxla ma ci wàllu fas parce que ay heure la liggéeyu sooke ay heure la ci fas. su heure bi jotee ñu taal oto ñëw jël si ma. ma dem def li nga xam ne mooy sama liggéey ci wàllu fas suñ fa jógee dañ may indiwaat ci atelier bi bàyyi ma fa ma respecté sama heure de travail ba mu jeex su ma amee benn jour sax bu ma liggéeyul ngir fas yi bu ëllëgee dañ may pini ci fas pour ma dem liggéey. liggéey bi lan la woon ci wàllu fas lan la doon liggéey loo. waaw doon jaabal loo wala da nga nekkoon fara feñee wala loo njëkkee. waaw da ngay jaabal mais man Modou sama carrière ci fas dafa metti trop. man looy xalaat rek nit di ko def ci fas pour arriver def naa ko ci fas dama daan tàggat ay fas maanaam poulet de yu ndaw yi xamagul dara buñ ci jënd indi ci kër gi man maa koy tàggat di ko dressé ci laa daan jàng war bu mokkee ñu wut entraîneur jox ko ci noonu laay def ba qualifié ba yàlla def ma commencé war. kan moo la njëkk waral fas ak ban ana nga euh, war fas di ci course. à part Jolof. Mm-hmm. Bassirou Ndiaye Mbayante. Mm-hmm. moom laa njëkk a waral fas ci course. Tanor ant Bakar. waaw ah, non non Thiès Tanor Anta Bakar Thiès. Makode fële tëngee waaw Makode Diop. Makode waaw. d' accord ah, kon suñ la déggee mu mel ne Bassirou Ndiaye Mbaye mi nga xam ne mooy waajuru góor bu Pape Ndiaye mhm. ah, moo la tàggat daal di la yóbbu Dakar dugal la ci. nga xam ne ni moo di wàllu fas. wàllu fas tey Pape na ñoo xam ne ni jockey dañ koy gis rek war euh, ci course di dawal rôle lu jockey jockey lan mooy liggéeyam dëgg-dëgg ci rek la wala bu jógee ci course am na leneen lu lu mu war a def. non soo ke ci course war dimanche rawante kese la bu dee rôlu jockey mais entrainement fas bi nga xam ne yow moom ngay war danga ci am part aussi part bi nag c'est pas obligatoire mais léegi nag def nañ ko obligatoire parce que tàmm nañ ko ba nga xam ne léegi ku ñëw loolu lañuy lay imposé muy lan muy jaabal fas bi Mm. fas bi dafa am ñetti parti ñu ñu ko seq mm. à part borom fas bi dafay am entraîneur moom la ñuy wax palefrenier mm. am jockey staffu fas bi soog a ñëw entraîneur bi rôle ci fas bi mooy buñ ko joxee fas bi fas ñi ngi koy joxe ci fin de saison course su tëj ci la ñuy engagé jockey ci la engage engagé entraîneur fas bi laa bëgg nga yor ko comme entraîneur ngeen waxaale ñu jox la sa engagement nga yor fas bi foofu choc bi amu fi dara léegi yow entraîneur boo yore fas bi yaa géré fas bi dund fas bi moom borom la war mais entretien fas bi nawet bi yëpp fas bi nekk pause topp topp yëpp yow entraîneur bi yow la war ba mu commencé débuté waat entraînement entraîneur bi la war mooy commencé di war di dox au bu fas bi dégraissé pendant deux mois bu fas bi oyof ba commencé war a galoper am na entraîneur yoo xam ne bu ñu waree galoper danañ commencé galo ba am ay huit galo neuf galo soog di invité mu ñëw mais pour la moment actuellement duutu entraîneur yi léegi parce que entraîneur yi léegi mënoon tuñu loolu mm. kon donc wàllu galo bi joxe bi moo ko mais dañu seetlu ne fas bu dawee ba pare rek hmm. euh, tàngoor bi muy ànd ak rek foofu dañ naan parfum yi rek moo ko mën a téye sinon keneen ku ko téye dalay gaañ est-ce que loolu c'est vérifié lu am la. non waxin la rek. Hmm. parce que parfum bi xëy na moo gën a xam sécurité fas bi. te du yoon sax nag nga dawal ci sa fas ci course ba fas bi daw ba arrivé ba pare nga jël ko di ko jox quel que soit alpha ba leneen mën ci xew. Hmm. parce que fas bi en tant que yow la ñuy engagé rek ngay entraîneur bi. nga préparer sa fas pour rawante si dugal sa oto ñëw wàcc ci hippodrome bi def say préparation dawal ba pare moo xam nga raw moo xam ñu raw la mais sécurité fas bi yow yaa ko war a garder ba delloowaat fas bi ci loxo bi. mais est-ce que euh, tàggat fas euh, ba ba li nga xam ne moo di course mu ne ci xelam. est-ce que loolu yomb na parce que dafa mel ne fas yi ñoom sax dañ leen di tàggat ba bu waaj yëkkate drapeau bi xam na ne tey dañuy rawante loolu naka lay ngeen di def ba installé ko. waaw loolu yomb na yombul parce que nit ku ci ne ak sa métier lu ci jafe du ci bari. Mhm. parce que boo xoolee comme yenn écrivain yi da ngay gis nit koo xam ne illettré la xamul dara. Mhm. xamul luy A xamul luy B. Mhm. nga ñëw di ko jàngal na ko nii la ñuy bindee A nii la ñuy bindee B. ba mu comprendre les vingt six lettres mhm. nga ne ko nii lañ koy taxalee lii la ñuy bindalee mu di ko bind mais par contre pam ñi ngi mu jàngul tey nga ñëwoon na ko bindal ma Modou Moustapha mhm. ça pose problème mhm. maanaam secret la waaw secret la rek kenn ku ci nekk ak mbécc bi nga opté mais Pape kan moo mën a nekk jockey est-ce que nit ku ne mën naa nekk jockey non non du nit nekk mën na nekk jockey parce que d'abord ambition premier pas ci jockey mooy nga am bëgg-bëgg bi de deux taayu joge mm. joge dafa am taay mm. bëri na ñoo xam ne ñi ngi war fas di rawante duñu ay joge mm. parce que benn amuñu esprit joge amuñu taayu joge poids moo leen ci boole ñu nekk joge bu poids bi dépassé dootu nekk joge poids bi ñaata la parce que poids bi mi ngi départ zéro au maximum ba ba cinquante. cinquante kilos. waaw xam na nag mën nga ko dépasser. Mhm. mais entre quarante huit cinquante kese boo ko xasee egg ci poids buñ la taamuwul lool mën naa na sa carrière jeex est-ce que gàttaay bi am na ci solo wala joge mën naa njool. noo taamuwuñ ci bu njool. Mhm. parce que soo ko buñ leen ñu la plupart ki la gën a yor taay bu gàtt moo la ëpp avantage. Mm-hmm. ci dawal. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, kon mbokk yi rek euh, comme ni leen ko waxoon léegi rek euh, tey nag seen émission déggoo fii ci Dunya Production ñu ngi dalal Pape Gningue bokk ci écurie bi nga xam ne ni professeur Sakhir Thiam moom moo ko moom ñu waxtaanee rek wàllu fas ak wàllu liggéeyu jockey naka lay tëddee Pape ban fas moo la gën a marqué ci fas yi nga mas a yore yëpp. waaw fas yi moo yor yëpp vraiment yëpp marqué nañ ma parce que fas bu ci bu lay defal teraanga mm-hmm. dina la marqué mais comme li nga wax tamit dina am boo xam ne doog ko fàtte bu mukk mm-hmm. mais amoon naa fas bu mel na fatilan fatilan fatilan fatilan moo ma gën a marqué ci fas yi yàlla jaarale ci sama loxo kan moom professeur Sakhir Thiam mm-hmm. da amoon cofeel ci moom wala daf la daan rawal si daana ma rawal mais dama amoon ay qualité yu ma gisoon ci moom mm. doon ko dund ak moom mm. ba finalement bi ma ko ñàkkee dama mel ne ko ñàkk sama parent dafa daanu waaw dafa daanu kon mm. donc fas boobu marqué na ma trop waaw ci sama course mais fas yi fan la ñuy gënante fas course yi waaw fas yi course ci sang sang bi d'abord waaw parce que am na ci solo trop bu njëkk local lañ doon dawal mm-hmm. yooyu yaakaar naa léegi jóg na fi jeex na fi mm-hmm. ñu dem ci demi cent mm-hmm. dem ci trois quart dem ci quinze seizième dem ci seize léegi ñu ngi ci ay dix huitième deux cent parce que léegi ñu dawal comme les pistons waaw Pape ñaata trophée nga amagum bi nga dalee dawal ak léegi ah Modou Moustapha nag yaa ngi may di pose problème loolu moom wax dëgg yàlla boo ma ko waxee dina ma jaaxal ci trophée rek xeyna amna yo xamne bo mu ko tiyé lon mëna ci xam quelques trophée mais nama trophée mom franchement lima yalla jaglé ci trophée mënu mako ko di lu mëna la amna tant mais manam ñaata grand prix nga raw dina ma grand prix chef d'état suma joomut moy eh, li nga xamne ni bepp joké bëgg na ko gagner ndax ta dafay day bok ci lay dundal waaw ah. bu dé grand prix chef de l'état amna 6 fois grand prix chef de l'état macha allah waaw. Ah. Mm-hmm. kàttanu yàlla. Mm-hmm. mais Momadou Moussa bu dee grand prix rek yu may raw wax dëgg yàlla mënu ma toog fii di la ko te li wax ci télé laa koy wax. boobu turfis yëpp dañu ma déglu parce que ñi ngi may suivre yaakaar naa ne li may wax kenn amu ci loolu ci laam-laam lañ. Mm-hmm. keneen kooku ci lim loo woon tamit mënu ko lim. waxuma laa man. kon maa ngi ciy yàlla bu fasam rawee. Hmm. moom dañ koy tegal prime wala ci li fas bi raw ci koy fay wala ki nga xam ne moom moom écurie bi moo ko engagé di ko fay weer leer ñu foofu foofu nag ñu bëri ñu ci am toujours. jiixi jaaxa jiixi jaaxa. Hmm. Euh, pour pourcentage lay liggéey hmm. mais à part euh, pourcentage engagement d'abord. signer contrat waaw contrat. Euh, contrant bi moo xam benn fas la moo xam ñaari fas la moo xam jockey écrit la nga wax ak sa propriétaire pour tëj dama bëgg nga waral ma soo ko écrit ngeen wax ba d'accord ci cadeau engagement temps nga may jox ma waral la soo ko écrit mun a ngeen signé contrat boobu course tëj na mu yëkkati sa xaalis jox la nga dem ñibbi ba saison démarré bu saison bi démarré nag fas boo ci di war lu mu am pourcentage nga ciy am prix boo gañee prix bi nu mu toll am nga ci vingt pour cent waaw entraîneur bi yow fas bi am na ci vingt pour cent ñun noonu la ñuy liggéeyee. d'accord kon ñu marqué pause rek euh, bu mu paree ñu waat ci suñu deuxième partie. d'accord ok Moustapha. Euh, jere ngeen jëf mbokk yi ñu ñëwaat rek seen sun ñaareelu xaaju émission bi euh, comme ni ma leen ko waxee ci njalbeen gi rek tey ñu ngi dalal ki nga xam ni moo di Pape Gningue euh, nekk jockey bokk ci écrit bi nga xam ni moo di bu professeur Sakhir Thiam kon Pap jockey yi fi mu toll nii ndax yéen am ngeen association seen seen seen ak dund naka la demee seen condition yi ngeen di jamono yi. waaw wàllum association des jockeys moom xawoon na fee mais actuellement ñi ngi ciy def ay jéego yu baax a baax ba semaine bi passé sax su ma jumut am nañ récépissé hmm. euh, foofu daal lañ ci toll mais amoon nañ difficulté euh, association des jockeys euh, Pape Gningue ku ko wax wax jolof-jolof ban relation nga am ak autorité yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu politique fii ci département bu Linguère waaw Mamadou Moustapha Jolof mm, bu ma yëgoon na la ku dul doomu Jolof aw maag yow boobu relation euh, mais les autorités aw ma benn autorité au niveau du Jolof boo xam ne am na ñu boobu relation. Hmm. kon maanaam ci li nga mooy amu ci kenn koo xam ne ni mi lay jàppale ci sa wàllu liggéey te yow comme ni ma ko ambassadeur nga. dama na la bu dul doomu jolof di doomu daara amul benn autorité bu dëkk au niveau di jolof bu ma am ak relation à cause de ci li liggéey. maanaam suñ la déggee. Ah. amul benn yoon boo raw sax euh, euh, course ñu woola sargal la wala ñu woola di la félicité parce que yéen bokk gox bi. loolu mosul am Mamadou Moustapha. Hmm. Ah, mais nag loolu metti na ma mettiw ma ci benn boor. parce que yaakaar naa ne fi au niveau du Jolof kenn ku ci nekk ca branche ba nga nekk ci nga mën a sa dëkk. Mm-hmm. man yàlla dogal na ci wàllu épisme laa yëngu. Mm-hmm. mais yaakaar naa comme li nga wax sànq kenn dootuma ci laajte. Mm-hmm. mais fépp fu ma fekk ci Sénégal ci wàllu wi ma yëngu da dana def danaa fa représenter au nom du Jolof. mais de plus yàlla mi ngi may loo xam ne ku nekk soxla woon na ko mm-hmm. yàlla ci kattanam di ma ko may ma di ko wuyoo ci doomu jolof mais du ci benn doomu jolof boo xam ne yaakaar naa ne ci autorité yi ngay wax bu bu ma séparé wu day xaw a difficile tuuti mm-hmm. parce que bu may wax man au di jolof laay waxe mm-hmm. mais les autorités de jolof du ci kenn koo xam ne mas naa sentir na sax mom amna satisfaction ci limay def. da nak deug na pam ñi ngi bari nga ay terrain yo xamne ni dañ la ko may parce que ndax li nga dekk jollof loolu amna wala amul. loolu amul Momadou mustafa dama na la du ben autorité bo xamne yalla tek na la fi ci jollof nga sa wax tan sax ak man telephone mm-hmm. wala ñu dajé ci sa fonté yaakar na nit ki lo man man terang mëno defal nit terang ko xamul mm-hmm. ta awma bobu relation ak ñom du jógewul ci man nag ci ñoom la parce que man nekkuma fi maa ngi représenté au niveau du Jolof maa ngi ci liggéey boobu yaakaar naa it maa ngi ciy xar sama tànk tuba maa ngi ciy def la ma man mais dañu seetlu ne bari na ñoo xam ne nii ay communicateur traditionnel wala ñuy yëngu ci yeneen mbir dañ leen indi ba fi Jolof te dëkkoon fii di leen teral leen teral mais lan moo lan moo waral loolu. waaw man loolu li ma koy gisee Mamadou Moustapha mooy xeeb seen bopp. Mm-hmm. parce que loolu ngay wax nii pour ma dëggal sa wax. Euh, dawal nañ fii benn grand prix la fois passée honoré ko benn euh, nitu jolof yàlla dogal man maa ko raw communicateur lañ woo fii jolof teral ko ba may ko terrain. kan la kooku mën nga ko tudd. muy Peex. Mm-hmm. te man may doomu jolof sama njaboot gépp nekk jolof. man sëriñ sax bala ma koo jëndal sama waa kër damay dawal sama oto ba daar fi laa ko jënd yóbbu sama kër tiitaroo jolof may tiitaroo jolof di sagoo jolof yaakaar naa it maa ngi sagal jolof kenn warantewul loolu mais du lenn loo xam ne nit mës na ma ci sollicité fii ci daara jolof mm-hmm. loolu man maa la ko wax kon daal ni nga dégg ni ma déggee mooy amul lenn lu la defal loo xam ne ni mm-hmm. en tant que autorité ak du benn autorité bu dëkk jolof bu ma sa satisfaire ci dara. Hmm. mais pap lan moy sa secret dañu sellu ne Pape ñi ngi man xamone ay année 95 ba tay ba ñi Pape mom soppé moomu wul lan moy sa secret ci walu alimentation bi la wala wala lan la wax ñu lan la lu xew. waaw alimentation bi amna solo mais respect sa bop tamit amna solo ci dundinu ma adama ci naka. parce que Mamadou mustapha man presque man nana sama nepp Dakar la ko defee. Mhm. yàlla dimbale ma trop tamit mais damay nit koo xam ne nit du tagg bopp mais dama fooyewul sama bopp toxuma naanuma kartuma xaalis dew ma fu mu war fu dem dew ma ci boîte de bi def ma dara entraînement sama liggéey sama kër hmm. ak julli ak jàpp lu ma am indi sama njaboot yaakaar naa loolu boo ko defee yàlla dina la dimbal. mais Pape dañu daan dégg ne euh, xale yi nga xam ne dañuy jàng war fas ci course yi. Hmm. yéen seen genre gi dañ leen di magu bu demee bay bay bay tourné am na ñoo xam dañ leen di caw ñuy daanoog yooyu est-ce que loolu am na. waaw loolu amoon na mais léegi loolu amatul. Ah, règlement bi daf ko waaw règlement bi daf ko tere te et ak léegi média bi. Hmm. ni mu mel bu njëkk melu ko woon. yu bëri mënoon nga ko def en secret mais léegi yaakaar naa ne secret bi amatul ndax média bi mhm. loolu ci waay def rek lu jaaru ci yoon rek après boo wàccee yoon dina la daal Pape ku wax course wax ki nga xam ne ni moo di Mor Sina wax ki nga xam ne moo di Alpha Ndiaye ñooñu nga daan euh, warandoog ñoom bien vrai que ñoom ñoo la mag euh, est-ce que yaa ngi xalaat euh, léegi ne ko mag ñi di waxee à la bien sûr à la moom boo ko soree dafay ñëw boo ko sóorul dafay ñëw parce que de deux Mamadou Moustapha amul benn nguur bu dul jeex bu dul nguuru yàlla. loo nekk lu nekk rek nit a ngi ci woon. te bés dana ñëw ñu ne lii la doonoon. kon donc nekk naa ci ay nit ñu toll ci niveau bi ma toll dem nañ ba benn instant retraite dikkal na leen am na ñoo xam ne sax du âge de retraite mais dañu dem ba métier bi moo leen bàyyi. parce que mbir moom boo ci yàggee danga dem ba bàyyi ko wala soit moom dina dem ba bàyyi la. Ah. te loolu mi ngi ñëw. Ah. kon donc loolu maa ngi koy bàyyi xel bu baax a baax. boo demoon tey ba à la lan mooy say projet. waaw projet samay projet bari na parce que maa ngi ciy xalaat. Ah. te maa ngi liggéey yàlla mi ngi may defal sutura te yàqu ma ko. dama yor njaboot te gannaaw yàlla. ñoom man rek lan yaakaar te man sama loolu ci li may liggéey laa yaakaar maa ngi organisé maa ngi bàyyi xel tey su ma demoon ba li may liggéey doxatul sans autant que ma retraité war naa am ci leneen lu may yëngu pour yor ci sama njaboot. kon donc loolu maa ngi koy bàyyi xel te am naa yaakaar na bu ma benn. pourquoi pas ubbi benn école boo xam ni dañ ciy jàngale war fas ak ak ni ñu toppatooy fas. waaw loolu yëpp mën naa nekk mi ngi sama programme mais yàlla def na sutura. man yoruma benn métier rek moom bi Moustapha. ah da am beneen. waaw parce que am na loo xam ne daal yaakaar naa ne lu bari tey su ma demoon ba lii arrêté tamit yaakaar naa am na yeneen branche yoo xam ne su ma ci yëngu woon. Mhm. yàlla mën na ma cee defal tuuti mën naa ci yor sama njaboot. mais Pape yan course moo la gën a marqué ci sa carrière. du ne ban course mais yan course ñàkkut course yoo xam ne nii moom am nga hmm. mbégte te doo doo ko fàtte. waaw Modou Moustapha Grand Prix bi ma njëkk a raw. ci Sénégal 98. moom mu gën a marqué. foo ko rawee woon. Thiès laa ko rawee. lu waral lu noonu lu waral mu marqué la. waaw li waral mu marqué ma mooy liñ naan lu waay gëmul rek mënoo ko doon. Mhm. parce que li la wax rek lima ma ci bi may xale solo li daan foowee ci fas li ma daan reewee dem ba yàlla may ma. bes bu tol ni aduna bi yeb di ko xëccu yàlla jagleel ma guddi gogu nelaw mo bo bët mais amna ñu ne yow bi ngay commencer di war sa mak daf la daan téré dang koy deggal wala. waaw téré bi yeb moy lima wax si ben bi rek. Mhm. sama papa mo bugulon domam ñak metti mom da daan wax soit da fay jang wala mu am metti mhm. mais du sifur ben branche bo xam amul suite hmm. ëllëg loolu arrêté doomam di tax taxawaalu loolu la doon bañ tey yaakaar naa ne euh, lam doon bañ tey yàlla dimbalee na ko ci ba doomam yàlla dénk na ko lu muy suturoo ci wàllu métier te yàlla may na ko métier boo xam ne tey ëllëg bu jaaxoon mën na si jaar. mais est yaa ngi xalaat tey Pape ñu ngi bu demoon ba ba euh, fii doomu Jolof boo xam ne mooy assurer relève bi est-ce que am na ñeneen ñoo xam ñu ngi yëngu ci wàllu joge. waaw am na ñu fi yëngu. Hmm. ci ci côté passe bi. am na ci ay boo yu ci yëngu mhm. mais li ma la wax aussi euh, man sama relève Modou Moustapha dina jafe lu waral loolu waaw xam nga loo gis rek am na lu ci yàlla cërale doomu aadama du gën a man du gën a xarañ du gën a dara mhm. mais dafa am solo benn carrière boo xam ne du nit ki moo koy carrière boppam yàlla moo koy def ci boppam mhm. parce bu mën na la vingt dix huit ak léegi ñaata at la. waaw ah, daanaka ñaar fukki at. ñaar fukki at. Mm. te yaakaar naa ne tey la ma nit ñi gën a soxla ci sama wàllu liggéey. Mm. te 98 laa njëkk a dugg cour des grands. Mm. di rawanteeg choc yu mag yëpp ñi ngay wax ñoom Alpha Ndiaye. ñoom Mour Sine ñoom Kéba Dieye ñoom Birama ñoom Maligay ñoom Mandiaye ci laa njëkk a rawee grand prix chef de l' te ba léegi yàllaa ma ci bàyyi te yaakaar naa maa ngi def ay preuve ba dimanche bii passé. grand prix de la renaissance yàlla dogal maa ko raw kon donc loolu carrière bu yàgg la xale léegi nag seen carrière yëpp quatre ans cinq ans mu jeex mu jeex kon donc carrière boobu pour lu lu relever défi bi yaakaar naa ne yàlla mën na ko nag yàlla ko yàlla def loolu laa ñaan te amit yàlla nekk euh, muy nekk doomu jolof mais am naa yaakaar na dina jafe trop. dina jafe. waaw euh, kon euh, Pape euh, ku xam daara xam ne dëkk boo xam ne ni ñu bëgg course ñoo fi ne parce que bu course amee dañuy dem fu ne mu jaral leen lu ne. Hmm. ñu di la topp di la suivre. Hmm. ku wax centre de recherche zootechnique bu daara xam ne ay fas ñi fay juddoo mais daara mën na ne bu bu dawalee balaa dawalaat kenn xamul kañ lay doon lan mooy problème bi. waaw li problème bi moom Moustapha mooy course fi mu toll léegi nii dafa laaj mooy. Hmm. tafid au niveau di dar, mana naa na la ci sama xam-xam sur, ma leen di wax toujours ñi bëgg course amuñu moyen ñi fii am moyen pour mën a doxal course bëgguñu course li gën dafa mel ci seen biir dañu am ay problème mu nan ki du jité waaw lolu amna ci course ko amul experience, comme pap jay Mbaye Anta man hmm. nga rek jité ko déedéet euh, course mun loko jité ta amulo experience course parce que euh, course mbir la mo xamné danaka dafa bëri ay mur yo xamné Modou Moustapha ku nekkul ci biir dundu ko rek mënuloo loko xam te Pam jaay wax deug yalla man Pam jaay ak magat yep ben lan ci man man anuma pas contre ma kii parce que bu man duma kalan mhm. parce que man acteur la kon du mo parti clan. mais en tant que acteur est ce que pare nga pour jappalé len eh, ba jàmm dox sen digënde bañ mëna dawal course. lolu toujours ci lolu la nek man ci dara kep ku yëngu dara lu suqali dara rek je suis prêt pour ma ànd ak yow ci lolu hmm. ci lolu man di doon nek rek ànd na ci yow. Hmm. mais képp kuy def lo xam luy indi safar wala jolof la buñ bokkoon nday ak bàyyi ànduma ak yow ci lolu hmm. parce que man awma lu jolof. mais diggante Maguette ak Pam jaay yaakaar naa ne problème war na ci mën a ñàkk. li naan nag réeroo amul ñàkk waxtaan am mais lii yaakaar naa bu nu waxtaanoon war nañu mën a am solution Pam Ndiaye nag ñoom ñi ngi wax Maguette ñi ngi wax mais Pam Ndiaye moo jiite course Daara Jolof yaakaar naa kenn du la parce que papam jiite na au niveau national de deux Pam am na expérience bi am na connaissance

sujena na maga bu mag mag mag Senegal. mag ci Sénégal parce bu ñuy wax course fi senegal centre bi amna ci wal nam legi moy bari nan jumtukaay yi bari nan ba liñu amone doñ ko titero dole doxna ba nanguko comme li nga wax sank rek ci ñak seen ñak deggo moy indi loolu parce que centre bi boo gisee li ko gën a ray ñàkk déggoo waa jolof gi course amutu fi parce que daara daana dawal chaque année deux fois par an léegi bu dawalee ren dana toog deux ans trois ans du dawal euh, gars yi ñëwatuñ fii te ñi fi nekk mooy li ma commercial bi moo fi gën a dox ku ci jënd fas yàkkamti woo loolu jaay ko li gën a rey daara loolu ci la bokk ba li nga xam ne moo fi doon indi nit ñi li olof Njaay naan kuy wàll yaan sa kër a tëggul. d'accord Pape looy jeexale li ñu cërleen ci wàllu waxtu fing na. waaw Modou Moustapha xanaa di leen gërëm rek di leen sant di rafetlu seen émission bi di leen ñaanal fa ngeen mébat mu yegg yàlla na ko fa yàlla eggale parce que li ngeen di dox baax na rafet na euh, doxu leen lu du yeete ak feeñal lépp li ngeen ci nammu yàlla na ko yàlla eggale bañ toogaat fi defaat ci yeneen i émission maa ngi lay sant di la gërëm di sant Lesko. di leen ñaanal li ngeen ci namm yéen a xam yal na ko yàlla def vraiment di leen wax na kontaan naa encore. une fois la gën a kontaan parce que dalal ku mel ne yow lu am solo la. parce que yow li ma ko waxee rek ambassadeur Jolof nga fële nga ne kon mbokk yi yi nga xam ni yéen doon seetaan seen émission déggoo fii ci Dunya production lëkkaloog nag ak Daara TV te Jimi jiite ko ñuy euh, profité ci occasion bi di gërëm suñu réalisateur di DJ ko ñu gën koo xam ci Modou Mbaye ak Jimi Ndiaye mi nga xam ne nii moom mooy teg li nga xam ne moo di euh, émission yi ñu leen di jaajëfal di leen jox dig daje ba benn incha allah jërë ngeen jëf